Mbacké Faye kii moment bi moo lan moo xew exactement wóor na borom Touba barki arxuraan ak waxtu bi xaw ma lu xew ba léegi man daal jekk yéeg naa gis ñu song ma barki arxuraan musuma gis nga am problème ci làmb wala nga jote ci làmb sama xulaay tal la wala boo bële yaa ngi gis may calmé ma lax lii moo xew man daal gis naa ñu may song ma xam ne ñii dañ may gaañ su ma la xee dëgg wóor na borom a gis nga ay sees dañ ma doon wóor parce que sama kanam mooy la xam nga ni ku ma fekk xam nga man tey ma taxaw si stade lu mës a am nit ñëw di ma dóor musul am. mais pourquoi combat bi am pression bi mu am man mënu ma ko. am na ni buur bëree moo ma gënal. barki alxuraanu karim saa jaxal man ma def lii bëree ba dama ko bëgg.